Wow, assalamualaikum mbokk internet yi suivre Lamyn TV nuyu nañ leen jaajëfal nañ leen ah tey nag ni ngeen ko gisee nii ñu ngi fii ci Nianing ah Nianing si Petite Côte bi diggante Mbour ak fi nga xamante ne moom mooy Joal Fadiouth Nianing lañ ñëw tey seet si ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Pibery Pibery nag ndeysaan nekk benn lieu ba nga xamante ne ay xale yu xara ñoo fi ne di liggéey li dem ci flocage sérigraphie ak yeneen ak yeneen ah dañuy dugg si biir. jox gaay micro bi ñu gën a expliquer li nga xamante ne moom mooy seen liggéey ay tableau yi nii ñoom ñëpp dañ koy joob ah caméraman ñu dugg si biir pibër yi jox gaay ñu yaatal affaire yi ni muy demee jaajëf. Ah. fii mooy pibër yi gis ngeen ko nii flocage sérigraphie reprographie vidéographie affiche flyers étiquette ah. carte de visite carte de membre vidéographie site web affaire yooyu yëpp dañ koy job Aïcha Gaye ñu jox ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Ngom liggéeyee fii ci Pibery yi mu détaillé leen li nga xamante ne lépp moom la ñuy defar fii nii ci ci place bi ah. Ousse teel ñu ko doon expliqué leen gars yi. asalaamaaleykum waa Sénégal waa jaspora surtout. ñiy suivre euh, Lamine TV di ko béggee bu baax. donc fii mooy Pibery yi ah. donc euh, li ngeen di gis nii mooy support yi ñuy liggéeyee yëpp. ay flocage t-shirt. moo nekk nii. ay dimension bu ne am na taay bu ne ci xalé ba ci mag li aussi ay tableau la yu ñuy tirer PVC sen photo pour sen photo salon yeeg yoyu donc li da ngeen koy am euh cag-cag même pas une heure de temps ngeen jot ci ah voilà légui euh, aussi bu loolu wesso am nañ euh, li nga xamné moy pibori mag li aussi côté hôtel yi la information day génn chaque mois donc euh, magazine mensuel la voilà c'est une première aussi sur la Petite Côte waaw lebih la Pivory defar restaurant yi mhm. am ngeen aussi lépp li nga xam ne menu mhm. menu yaa ngi nii dañ koy defar mhm. tout ça voilà dañuy defar li menu ainsi de suite ay panneau publicitaire ay panneaux publicitaires carte visite. Mhm. ay bannières. Mhm. ay autocollants. Mhm. ay porte clé ay cases. tout cas dañ koy défar fi ni ci. support ak yan support ngeen di bind parce que dégg naa dañuy bind ci ay auto, sax. wa dañu bind ci auto dañu bind ci setu même dañu bind ci verre aussi ak ci vitre. ay cases ay cases ay plateau ay assiette lool nak aussi mu ngi euh, gëna festif Saint-Valentin bi. yi nga xam dañu bëggante dédié Lamine TV benn. kiiwam rek jox ko fansam jox ko kaas ne ko maa la ciy béggee bu baax bu ñëwee fii dañ ko koy bindal donc voilà c'était ça emballage bi aussi am nañ beneen euh, kii support bu ñuy liggéeyal mooy jërëjëf mm-hmm. boo leen ñëwee bu ñu leen jaayee ba pare pour avant ñu leen koy livrer mom mo koy emballé euh, jox leen ko ci anam yu mucc ayib. élèves yi aussi pour impression ay photocopie yoy noonu. bien sûr photocopie dañ koy def euh, impression numérique lépp li nga xamné moy tirage imprimante aussi dañ koy def A4 A3 A5 ba A2 aussi dañ koy def moy nga xamné affiche bi gënal a A2 bi lool yëpp dañ koy def voilà. aussi euh, maillot Sénégal yi ngeen gars na ngeen ñew wa bi am étoile aussi disponible na pi ah yaa ngeen jëf waaw di bëggewaat Lamine TV bu baax ah, ci visite bi mhm. euh, ci confiance bi aussi mhm. parce que gis naa gis nañ liggéey bi muy def bu baax ci Petite Côte bi mhm. ñoo ngi koy jaajëfal mu doon ay Lamine TV yoo xamante ne fu ne lay dekk adresse bi ak numéro téléphone waaw adresse bi fii euh, mu ngi nekk en face euh, centre de réadduction centre de réadduction donc bi mu ngi nekk 77 275 96 75. fii ci Nianing fii ci Nianing. diggante Joal ak Mbour. ak Mbour waaw diggante Mbour ak Joal. diggante Mbour ak Joal. fu waay ci Sénégal aussi mun na commander ngeen livrer ko. exactement fu waay nekk ci rek ñu taxaw ci allah lu gaaw. jaajëf jaajëf tout droit. asalaamaaleykum yéen ñu ñuy suivre ci TV nuyu nañ leen nañ leen bu baax a baax. Hmm? voilà tey mercredi le premier juin 2022 ñu ñëwaat ak yéen ci journal du mbapat comme ni ñu koy defee chaque mercredi jox leen li nga xamante ne moom mooy résultat wu lamb ji mais jox leen aussi li nga xamante ne moom mooy programme lamb ji maanaam calendrier yi lamb yi fan lay amee ci weekend bi wala semaine bii di ñëw wala semaine yi di ñëw sax voilà balaa ñoo ñëw ci loolu comme ni ñu koy defee chaque mercredi ñu ñëwaat ak ci li nga xamante ne moom mooy trophée meilleur lutteur de la semaine semaine bële passé comme ni ngeen ko gisee bi ñu defee nomination yi ki nga xamante ne Ibou Ndiaye Oboli bu yoor moom moo ko mujjee gagné mooy bi muy jël lamb euh, combim bi ak lamb daga jawdin semaine boobu mu jëroon ñaari làmb voilà pour semaine bi aussi dañuy nominé waat yeneen ñetti mbër yeneen dugg ci commentaire yi ngeen wax ñu kii a été le maire de la semaine ah ñetti mbër yi ñuy nominé ci semaine bi kenn ki di libidor, libidor, bi nga xamantene mom mo jël fale ca somon ki nga xamantene mom moy mooy Ibou Ndiaye Obali day ñëwaat Ibou ndjay eboli ko ma koy waxé moy borom mois de mai bi bi pa day ñëwaat mo jël lamb jof euh, yor à domicile la woon jëloon ko ci kaw grand bañi kalmandoor ak ki nga xamantene mom moy bukki Ousmane le retour bu koy def retour dugg fi nga xamante moom mooy Dakar Adrien Senghor daal di ko jël jël ko ci kaw seen kumpa donc mu ngi noonu da ngeen di dugg ci commentaire yi ngeen votel kenn ci ñetti mbër yooyu soit Alaaji Ousmane Bouki soit Libidor soit Ibou Ndiaye Oboli mi ngi noonu léegi ñëw ak yéen ci li nga xamante ne moom mooy résultat wu lutte simple bi dañ koy commencer ci le vingt cinq mais voilà le cinq moo nekkoon mercredi bële passé fële ca bambu gaar lamb ji fa amoon Fambuda Fambuda bu baasul moom moo ko jëloon jël ko ci kaw Ndiol Géant bu Bargny. poids léger yi foofu ca bambu gaar ki nga xamante ne moom mooy ay dara bu mbulum moom moo ko jël jël ko ci kaw Zarko bu Mbasiis raw yi foofu arara bu Sokone moo jël raw yi ca bambu gaar jël ko ci kaw bu Kunta bu Mbasiis ah, donc ñaari waa Mbasiis yi dañoo ñàkk final foofu ca bambu gaar. Arara moom mooy borom raaw gaddu yi voilà département Foundiougne bi Log bi ñoom baatu bi moo fa teg loxo ci raaw gaddu yi wax dëgg fa yàlla. le 26 bi ci jeudi bi Diofior amoon na làmb Diofior ki nga xamante ne moom mooy Ibou Ndiaye ëbbali moom moo ko jël à domicile jël ko ci kaw Grand Mbagnick Kalmundoor poids léger yi wala tànk yi kii ko jël di Babou Sarr Diofior jëlaat ko à domicile jël ko ci kaw njangar bu. campement dangana jangar bumbin legui legi ga duy fofu ca jofior guuy gi bu jilas mom moko jël jël ko ci kaw ki nga xamne mom moy biram bi dak ndox sare fele ca diwanu jaxaw lolou mo xawon jofior buñ fa joge ñu dem fi nga xamne mom moy mbasis lok mbasis cité bu salum mom moko jël jël ko ci kaw boy maron poids yi fofu ay darabu mbulum ñewat jël ko jël ko ci kaw barrage bu Baouta noonu la deme léegi fi nga xamante ne moom mooy ñaaxar amoon na lamb ci dimanche bi dimanche moo nekkoon le 29 foofu ca ñaaxar Dije mbër Dije moom moo ko jël jël ko ci kaw Waly fay waa Lézey waagaan waagaan bu bonje yëngulee naa mbëru xaar juuf bi moom moo ko jël jël ko ci kaw yangaan léegi ba tey ci le 29 mai bi ci dimanche bi fi nga xamante ne moom mooy Adrien Senghor amoon na làmb bu kii alaaji Ousmane bu Ndangaan moom moo ko jël jël ko ci kaw seen kumpa fi nga xamante ne moom mooy Samone Samone làmb ji fa amoon Libidor moo ko jël jël ko ci kaw Toubacouta Buuru Saalum léegi poids léger yi foofu ca Somone Lamine Petit Sélé moom moo ko jël jël ko ci kaw ordinateur bu sali mu nekkoon final 100 pour cent Petite Côte ci poids léger ya Lagi fi nga xamantene mom moy amon aussi amon na làmb ñoojoor momu Zidane bu ñoojoor momo moo ko jël à domicile jël ko ci kaw njagasaar bu barñi poids léger yi fofu as as bi dekk baasul mom moko ko jël jël ko ci kaw Zidane bu januar lolou mu amon fofu ca ñoojoor buñ fa joggé ci lënd bi nak ñu ngi nekkoon campement wax dañ fay def taxaw seetlu parce que campement wax lamb ji egul làmb ja la fa xew yëpp wax dëgg fa yàlla en tant que demkatu làmb dañ koy ñaawlu ba fu ñaawlu yem yéen waa axlu làmb Sénégal ni ma ko doon waxee dama doon jël nuyoo bi di ko teg ci kaw suñ loxo suñu grand alfali alfali la président wax dëgg fa yàlla. ay organisateur ngeen boo leen sañoon dina demee neneen waaye nag wax dëgg fa yàlla li fa xew amateurs yi ñaawlu nañ ko mbër yi ñaawlu nañ ko parce que déjà nga teg lu tolloog un million de francs CFA woote. nga xamne ahlul lamb sen mbir mbiru senegal gi yep la ñep wuyu ci len war ngeen mëna tegg lamb ji camp mangé ko yaakar na amna na ay bayal yu yaatu amna na ay terrain amna na ay stade ngeen mëna jël fu yaatu ngeen organiser fa lamb ja mais lamb ji déjà fuñ ko organiser dafa xat lol lol lol lol lol mbeuri mënuñ gaat amateur yi ñew nañ ses ci saako yi te poids léger moy bëre te lolou bo gis ci lamb day fekk finalu poids lourd wala demi final poids lourd di waja ñew bu loolu weesoo làmb ji amul sécurité voilà gisuma fa gendarme gisuma fa policier wax dëgg fa yàlla yooyu aussi c'est à éviter parce que xam nga làmb du ay caaxaan nit ñu jóge fu ne paas ci oto yi ñiy lu ay oto ñëw paasaat ci làmb ji làmb ji eggul loolu dafa ñaaw mbëri aussi déplacé wu hmm? ñëw ba foofu ñuy jot a bëre ñaari combat daan ñiy jotu ñoo bëre mais ñu nga fa woon wut si woon làmb ji eggul loolu dafa metti ñun ñi nak waxi nopi ñewon liggéey si xam nga da ngay tok ba moy lool ya ma gëna xam ñu fa ñewon ñep ba ñuy ñibbi kenn amul lu ko neex yeen aussi xamna amul len len neex mi wax deug fa yalla bu benen yone ngeen gëna xolaat organisation bi parce que lamb dafa metti bu loolu wesso ci limay insister aussi ay amateur ngeen ak lu lamb senegal lañ wax ñun amateur yi ndax mon fa lay bolé sama bop à chaque fois ñun ñoy nekk ci groupe whatsapp yi di kaas ñoo ndax kaas lamb yi organisation yi organisation yi mais point bi mooy taxaw mooy làmb yi nga xamante ne dafay guddee ñun ñoo koy kaas parce que gars yi dañuy bëgg a seetaan làmb xëy le lendemain liggéey huit heures jaa ngi commencé aux environs de vingt une heures vingt deux heures ah ak lu yaakaar naa yéen boo leen tegee làmb làmb ngoon la war a doon vraiment bu loolu weesoo aussi ñi nga xamante ne waa sango maari naa leen classe tuuti waa sango maari làmb ji amoon sa moon làmb ji aussi dafa guddee torop te ñun amateurs yi ñun ñooy kaas làmb yu guddee li ngeen def bu doon benn promoteur boo xam ne dafa jóge fële di wut xaalis si làmb ji moo ko def mun nañ sax wa comprendre mais yéen da ngeen nekk ay nitu làmb nekk ay nit ya nga xamante ne seen taxawaay ci làmb gis nañ ko donc bu beneen yoonee ngeen gën a xoolaat gën a defaraat mu gën a naay genre ah. jaa ngeen jëf. léegi buñ fa jógee ñu ñëw si li nga xamante ne moom mooy programme mu làmb ji wala calendrier bi ñu koy commencé le 2. le deux le 3 ak le 4 lamb ju réy bi ca gànjaay ñaxabaan ku yàgg seetaan lamb wala ku yàgg topp lamb dëgg nga lamb jooju ñaxabaan ñu ngi fay tëg 3 millions ñetti drapeau la poids lourd yi le 4 tey jeex 2 millions la kon tout droit gànjaay le 4 ak le 5 gars yi def tout droit Casamance dem ba Ziguinchor waa Jambugum séeréer yi nekk foofu ca Casamance plus précisément Ziguinchor ñooy woote lamb ju rëy. Hmm? ay séeréer ci ay biir joolaa loolu cosaan la ak yéen ak jàmbooñ suñu maam yi voilà mu ngi noonu donc Ziguinchor voilà un million cinq cent mille lañ fa teg poids légers yi cinq cent mille poids lourds un million le 4 ak le 5 juin lay doon kon gars yi na ñëpp wàcc Ziguinchor mbëri séeréer yi nañ jóge fii dem fekk fa mbëri joolaa yi ñu bëre lu neex et que le meilleur caare loog am na làmb làmb caare bi le 5 juin la le 5 juin ci dimanche bi ñu ngi fay teg 5 bëf ak vingt cinq mille nak ah, juróomi nag ak juróomi junni kon tout droit Thiaré bu ñu fa jógee ba tey ci dimanche bi le 5 juin tout droit Dakar Adrien Senghor fan si club Mbayang Loum Mbayang Loum suñu yaay ji nga xamante ne def na lu ñu si làmb fan si club am bu ñu boolee organiser làmb loolu neex moo ñu dem Adrien Senghor ci dimanche bi le 5 teg fa 1 million waaye le 3 ba le 6 Diofior am na làmb. daaru Manguier ah quartier wu Coumba Ndofféne koñu Coumba Ndofféne yéen a ngi dégg woy bu neex bi Coumba Kor Musu andam ke waa goona te naagi maara baro sanca Coumba Kor Musu moo xewle moom ko waa koñam Diofior le 3 vendredi ah moom mooy raaw gàddu yi le 4 samedi bi làmb ji du tëgg dañ fa am benn gàmmu Diofior moo tax làmb ji du tëgg le 4 leer naa lambu Diofior bi samedi bi le 4 du tëgg le cinq dimanche mooy tànk yi poids yi di lundi le 6 noonu lay demee Diofior ñetti drapeau la mais lamb ji le 3 lay jeex le trois lay commencé jeex la 6 bu leen dëgg 4 jours yaakaar ne 4 drapeau la amul poussière le 3 ci vendredi bi mooy raw gàddu yi hmm? le 4 ci samedi bi du tëgg le cinq ci dimanche bi tànk yi poids yi lundi bi Diofior di 3 au 6 ñu ngi fay teg quinze bëf. cent cinquante mille fukki nag ak juróom ak fanweeri junni ah Diofior léegi ba tey le 3 ba le 5 juin fi nga xamante ne moom mooy Ndangaan Sokone dëkk Aso Ndong l'infatigable sama doom baay Aso sa dëkk ñoo xewleel le 3 ba le 5 juin Ndangaan sookoon ñu ngi fay teg un million cinq cent mille ñetti drapeau lay doon trois jours trois drapeaux voilà léegi le 2 ba le 7 juin. fi nga xamante ne moom mooy ñoo joor am na làmb ju rëy le 7 juin mooy mardi bi ci mardi bi lay jeex ñu ngi fay teg ñoo joor 5 bœuf plus un mouton plus cent mille hmm? juróomi nag ak benn xar ak 900 mille leer naa ñoo joor le 7 lay jeex léegi bu ñu fa jógee le 10 ba le 11 juin le 10 ba le juin nag dëkk boo xamante ne làmb dafa nekkoon. di fa dund ay champion di fa jóge mais lamb dafa xaw a sooxe xale yi booloo ne dañuy dégg làmb fan lay xewee ñu ne Joal Fadiouth le 10 ba onze 11 Joal lamb làmb cosaan làmb ndubaab lañ delloo vendredi ak samedi lay doon Joal le 10 ba le ñu ngi fay teg 17 bëf plus 1 cheval plus cent mille fukki nag ak juróom-ñaar ak benn fas ak 300 000 francs ñaari fan la mais ñoo ci drapeau la Joal Fadiouth le 10 ci vendredi bi la ñuy bëre raawgadu ak tànk ah poids léger ak poids moyen le 10 lañ koy bëre ci vendredi bi léegi ci samedi bi le 11 la ñuy bëre pois lourd yi Joal Fadiouth le 10 ak onze 11 17 bœuf 1 cheval ak 300 000 francs kon tout droit Joal quartier Ndoubab lamb Ndoubab aussi li ma leen wax rek képp ku yàgg a suivre làmb yàgg ngaa dégg lamb Ndoubab Joal moom lañ laat kon fii ku fi ñëw di nga fi gis cosaan gis fi lépp ah. voilà. buñ ñu jógee le 11 ak le 13 wala le 11 ba le 13 juin fi nga xamante ne moom mooy Toubacouta am na làmb Toubacouta ñu ngi fay teg benn nag benn xar benn fas ak 70 mille ah Toubacouta ah. voilà un bœuf un mouton un cheval ak 70 francs léegi le 12 juin ci dimanche bi fi nga xamante ne moom mooy Ibamar 5 millions. suñu papa Manga 2 Manga production moo fa woote cinq million Iba Mar Diop dimanche bële lay doon le 12 juin léegi le 12 ak le 13 juin ba tey fi nga xamante ne moom mooy yaayem yaayem am na làmb yaan basse production ah moo woote bii paa nag biir dëkkam yaayem tegal na mbër yi million cinq cent mille ñaari fan ñaari drapeau tout droit yaayem buñ jógee yaayam nag ñu xaar sam di bajat ñu def tout droit ndangaan sambu waa njom di production ñoo dugg si arrondissement fi la le 18 juin lay doon tegal nañ bëri oto ak 500000 oto am na ci arrondissement fi la ndangaan sambu lay doon oto ak 500000 francs ak njom di production le 18 juin kon tout droit noonu la fa demee rang muy abonné zulum salam tout droit trophée meilleur lutteur bi ñu ne leen nominé waat nañ ñetti mbeur bukki bu nangaan door bu kayaar ak Ibou Ndiaye ëbbali bu joof yor tout droit ngeen dugg ci commentaire yi daal di votel ki ko gagné ñu yóbbul ko ko ah jaa ngeen jëf